yéen lañu bëgg nag tey ngeen ñaan ñaan gi parce que c'est la fête des enfants et cette fête est placée sous le signe de l'innocence et de la candeur tout se fera par pour et avec les enfants loolu moo tax ñu am sañ-sañu ne woo ustaas mu ñëw xale yi seen bopp joxe ñaan ñu muslu seytaane ñu bàyyi xale yi ñu jàngal ñu fatiha Eh, tëje ko rabbana atina fi dunya hasan ñu commencé ko jataay bi ñaan yàlla ñu commencé ko ci bismillahi arrahmani arrahim e eh, ñu àggale ko ci alhamdulillahi rabbil tes souliers. merci ah, loolu xam nga ceebu kenn du ko jàngal mbaxal. doomu nday sama xol bi suppu kanja ci ne lii loolu ah. mooy am na keneen ku naan ñu xoolal. band. ñooy njooti ñooy suppi ñooy benn ñooy kooku xam ngeen mooy kan kooku mooy Baye Pen ah karkar tonto saw nee naa man fan fépp fu ma ne rek dinaa bégal xale yi may leen ay léeb yu baax a baax a baaxa baax a dégg ko bu baax waaw léeboon lii daana dégg am ku ne man kenn dund lépp lippoon da naan lépp la woon <laughs> amoon na fi daana ah. ndax waxu tey jar naa gëm ah sa boso si raw waxati ko sama jos ji ñoo ci raw ah waa ji dafa nekk ci koñ bi tafu rek la man tafu tafu tafu kuy sàcc mool dax dafa mën a tafu ah tonton Serigne Ndiaye respect <laughs> allez siyaar bu baax a baax baax a baax ah ayca dafa mën a tafu moom waaye dafa dugg ci kaar bi fekk fi màgget ak tafu tafukat bu retraité tafukat bu retraité bi si biir poosam ñaari juróomi dërëm la ci def waajo yor fukki dërëm toog ba si yàgg jege paa bi rek wokk loxo bi ndax tafu na ko ndax ko moment bi mu koy tafu tamit paa bi tafu na ko àgga aare rek wàcc da ko yow góor gi góor gi ne ko ah moo ko yow dama ne woon kenn mënu laa tafu yow mu ne ko waaw mu ne ko xool say poos tafu naa la paa bi ne ko moo fis jaru sori dama laa wecc xool say ñaari juróom da doon jàng tafu mu wan ko moo ko daax tafu ah mu ne ko xoolal say sàcc bi sàcc bi daa mën a sàcc ba dugg kër chinois yi tana zaro kër chinois yi la dugg sàcc bi mu sàccee nag chinois yi jàpp ko benn portable la sàcc chinois yi jàpp ko maase ko defar ko ba mu baax may ko ay portable yu bëri mu tëdd ci lal bi mu tëdd rek na morom mi muuru gaa yi dem kër chinois yi gaa yi dañ lay kii fekk moment bi muy kii chinois baa ngi da kan xocang xocang kan giñ ko ngan cang mooy tëddal ñu maase la lool si en anglais c'est en Chine moom maa ko dégg wa oh, jong jong jong xaacam xam nga keng keng ñu maase la mu tëdd mu ne ko boobu ñu fan nga xam nga chinois bu ñuy tudd seen doom dañuy sànni kudd bu kudd gu ne cere nañ rek tur boobu nañ lay jox dégg nga mu ne ko cere nañ rek maase maase waa ji maase waa ji maase waa ji ba mu pare may ko ay portable muy génne di dem na muuru billaahi booy sàccati bàyyil kër yëpp nga dugg kër chinois yi dañ lay maase ba pare may la portable tonton Zawo li gën a garaaw ma yërëm waa ji waa ji daal bu muy dem bay dox saa bu doxee benn cër wadd benn cër wadd bu doxee tuuti nopp ni tëkk wadd mu doxaat tuuti nopp bi ne cër wadd tonton Zawo muy dem loxo na cër wadd mu demaat beneen mu dem mën na noonu tànk bi ne mu demaat ba mu mujjee nii ndekete chinois yi bi ñu koy maase ñu ngi koy daf mat gars yi dañoo ay ayca mu ngi noonu kon feet la ñun ax yéen yàlla na si yàlla def jàmm bu baax a baax en tout cas xale yàlla na leen yàlla def mag yu am ñam yàlla sàmm leen aar leen si barke yonent bi si barke kilifa gi yàlla mën na ko te yàlla na ko yàlla def ñun amuñu lu dul lii donc bu ñu si ñëwee dañ ciy def luñ si man ax lu ñu ci mënul bu baax a baax ndax di gis euh, suñu papa yi <laughs> suñu les femmes déviées ñii ñoo xamante ne macha allah yàlla na yàlla mottali tarbiya bi yëpp si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay ca waaw ma ne demaguloo de non demaguma waaw mën ngaa jël sa yi rek ànd aw ci biir waaw ma euh, léegi nag xale yi tamit dañ leen di souhaiter <laughs> les enfants vont vous souhaiter la bienvenue waaw xale yi on va chanter marha marha Euh, on ne chanter. D'accord Deux, trois. مرحبا مرحبا يا أصدقائي اتبعوا اتبعوا حركاتي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 wa ala alihi wa ashaabihi wa man walahum bi ihsaanin ila yawmi ddin amma baadu ya marhaban marhaban ya marhaban bikumu ya marhaban zati tabjirin wa israfi fa in yakun wa in yakun marhaban iksaaruha sarafun kon fa laysa iksaaruha fikum bi israari bi israafi uh, uh, ayyuha saada wa sayidat bidayatan min annisa aw binnisa almuxlisat axsid les femmes dévouées مرورا إلى الآباء والأمهات وصولا إلى الضيوف الكرام نحييكم بأجمل وأكمل وأطيب التحية الله وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته xam naa da ngeen may baal ginnaaw bañ sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waruma sax wax auzu billahi min asheytaan rajim te nuyoowu ma bu ñu fi amee na Fatima ak docteur Maymuna ñu bokk ci wala bokk ñu nekk ñi nga xam ne mën nañ fi ne ñoom ñooy les femmes dévouées ak ñi ci des buñ toogee war nañ leen nuyu ñu ziar leen bala ñoo wax dara kon ñu ngi ci baalu bu baax di nuyu papa yeek yaay yi mais di nuyu gan ñu tedd ñi ñu fi am ñëpp bu ko defee kàddu yooyu laa bëggoon wax sànq bala ñoo commencé yàlla xam na lool mais da ngeen may baal àq bu baax xam naa rek mënul woon ñàkk. comme waxtu bi dafa dafa xat maa ngi nuyu ñëpp daal seen ziara di baalu xaq ci loolu xam naa xale yi dañuy konteel en français en arabe et en anglais dañuy commencer par l'arabe ah waaw dañuy compter arabe d'accord واحد

Ah, kon xam naa loolu la woon rek dañ doon léegi ñu am benn chanson bu ñu def aussi ci arab muy yaa madrasati yaa madrasati maa والألعاب بين الدرس والألعاب يا مدرستي يا مدرستي يا مدرستي يا مدرستي يا مدرستي ما macha allah ñu tàccu xale yi bu baax a baax. yaa moom loolu ndeysaan aha ee nañu leen yar yu leen yee leen jàngal leen aha xale place am du mbedd bi nañu leen yar yu leen yee leen leen xale place am du de bektaw bég yooyu sonal leen soo demee ba gis leen fii nuy fanaan si marché yi suufu pont yi ak gaar yi sa xol jeex nga xam ni sàggante Yéen leen yéen leen jàngal leen aw hey xale place am du mbedd mi fam ñor nañu leen yar yir leen yee leen jàngal leen aha xale place am du mbedd mi sunu gannaaw yéene doon yaakaari réew mi ngeen fexe bañe mu jépp somu réew si añaane sa doon sa deewin ña àwọn sì níbẹ̀. Rẹ̀wọ́gẹ̀ ní nàìjíríà kọ̀ǹgẹ̀ ìmújú. Ní aláfíìrì díje rí yọjẹ fẹ̀jẹ̀ ìmújú. Kon elme di mati, lole e di dawu. Diku diku warung muju. Kon elme di mati. yar yu mag yu baax yi daan yare nañu leen yaraat nañu leen yaraat nañu delloo si yar yu mag yàlla nañ ko teewee ay at yu bare bëri te bu ñëw rek diggante am solo ba jën na yàlla gën a kàttanal. Euh, xale yi ma jàkkaarloog yéen c'est votre fête aram ah, zam zam aram ah, zam ah. ah Arranza. na fi ah yi nee nañ bëgg gis ma ci kaw ma yéeg très amoon na fi <laughs> bu mu amee yaa fekke waxi tey ah daf fi amoon benn bis jamono boo xam ne bii rabu àll yépp dañu bokk dëkk ñu nekk di noos xam ngeen noos noos gaynde xam ngeen gaynde yaay gaynde di nàmpal doomu xar xam ngeen euh, rab boobu ñuy wax ni mooy sakal xam ngeen sakal xam ngeen sakal xam ngeen sakal rab yépp nekk nag bis bu ñu xëyee gaynde ak bukki ak muus ak xar ñoom ñëpp ñuy bokk di añ ñuy bokk di lekk ñuy bokk di fo doomu muus yi ña ngay fowe ji ci kër xaj yi lëg xam ngeen lëg doomu lëg dam di fo ak doomu segg waaw waaw ma man mi maa ko wax man mi maa ko wax de doomi lépp dem di fo ak jësit jësit xam ngeen jësit jësit fan la jësit di dund waaw kañ xam nga foofu neex na jàmm am na fa waaye ñu toog ba benn bis rek rab yépp nag toog ñu ni waaw mais gars yi ñun suñu dund gu neex gi ak dëkkuwaay bii ñépp di bokk di naan soow di naan ataaya di lekk michu yi léegi-léeg ñu defar suñu maafe ñu ñépp ñu bokk toog waaw affaire bi neex na de waaw léegi nag pour que mu gën a neex ku nekk day wax lan moo ko neexul ku nekk tey day wax lan moo ko neexul kon kenn dootul tooñ sa morom yow mii sax bu ma la laajee yow lan nga bëggul ñu def la ko yow lan nga bëggul ñu def la ko seen kër yow loo def bëggul ñu def la ko seen kër waaw lan nga bëggul ñu def la ko amuloo dara loo bëggul ñu def la aa léegi nag ñu ni waaw ku nekk day wax lu mu bëggul ñu ni dañuy commencer ci ki nga xam ni mooy maamu àll bi kan mooy maamu àll bi waaw amul ku mag ay kañ maam ñay mooy patriarche ñu ni maam ñay yow nag wax ñu yow maam ñay yow ay waay waaw maam wax ñu yow lan nga bëggul ñu def la ko maam ñooy ni man daal xam ngeen lu ma bëggul ñu def ma ko bëgguma poussière bëgguma coow bu may def sama sieste daal bu ma kenn déranger bu loolu amee rek jàmm am na ñu ni ah waaw kon léegi nañu laaj buuru àll bi kan mooy buuru àll bi ah na gaynde njaay njaay ñun ñi gaynde waaw najaay gaynde yow yow najaay gaynde yow lan nga bëggul ñu def la ko mu ni man de lenn rek laa bëggul ñu def ma ko man bëgguma daal ku noggatu xale xam ngeen noggatu noggatu mooy leen waaw di dóor xale mu ni man bëgguma ku dóor xale bëgguma ku am doole daal di wane dooleem ci ki ñàkk doole loolu bu amee rek ñu ne ah kon boog léegi nag xam nga foo gisee gaynde rek am na ku nekk ci wetam ku toog fële te te te koy niru nirul di ko jaay doole ko kan la kiy jaay doole gaynde kan la kan segg segg segg le oui le tigre ou la ñu ne ko wax yow lan nga bañ nijaay yow nijaay segg lan nga bañ mu ne man leen man man man li ma bañ barewul lenn rek laa bañ ku ma ni xocc rek di ma man bëgguma ku may xuli ku may xuli laa bañ après am na nag ku doon lux-luxi ci suuf di jaar ci bi nit ñëpp toog di wax am na ku nekk ci suuf toog ci waaye ci tànku nit ñeeg di ñu ni ko waaye yow génnal wax waaye yow génnal kokkan la waaye ki de ah mais toi mais mais dis-moi dis-moi dis-moi dis-moi. D'où tu tiens ton intelligence macha allah <laughs> ñu ni waaw yow léegi nag yow léegi <laughs> yow jaan <laughs> yow jaan yow lan nga bëggul ñu def la ko jaan lan la bëggul ñu def ko ko waaw jaan lan la bañ lan la jaan bëggul ñu def ko ko jaan bëggul ku dëgg geenam déedéet bëggul ko dëgg geenam mu ni man bu kenn dëgg sama geen après nag mu des kenn rek moo des ah bukki ñu ni bukki yow yow nag yow nag bukki yow bukki lan nga bañ mu ne man njuur laa man njuur man bañuma dara man dara laa bañul man ñu ni a ah, comme kañ léegi gars yi léegi dëkk bi day gën a neex parce que ku nekk xam na li nga bëggul ñu def la ko comme ku nekk bañ xam na li sa moroom bëggul kenn dootul tooñ sa moroom a ah, kon àll bi affaire bi day gën a neex ndeysaan affaire bi nag dem gars yi continuer di noos di lekk yàpp léegi les sombi léegi les maafin léegi les ba benn bis nag bukki dem doxantu ci àll bi rekk xam nga bukki moom du rëbb day topp rekk lu gaa yi def rek daaneel rek mu jël waaye bukki di lekk di lekk di lekk di lekk ba bukki buur bi gémmi mu def nii bi mu ñibbisee nag fa mu toogoon di noppalu noonu comme daa suur du mën a tëj gémmiñ gi ak bët yi mu ne xoj rekk ay waay yàlla nattu ko ndekete fa muy xool nii rekk ma nga jàkkarloog segg mu ngi jàkkaarloog la panthère te lan la bañoon la panthère panthère lan la bañ segg lan la bañ ku ko xool mu ni ko eh rek mu dawale bëtam ndax kersa jékki-jékki defaat ni rek yam ci moom waa ji ko xuccule mu ni ko mais sama rak yow eh sama rak yow lan la mais sama rak yow mais lan lan la loo may xoolee nii najaay sa najaay xaalama la sax de saay saay gëttamel nii rek mu ne ko bu ma xoolati yow ndeysaan waaye biir bi daa fees dafa suur këllëb ba mënul tëj bët yi mu ni xoj rek segg yemaat ci moom dawale bët yi yemaat ci moom rek jóg paaf booy wut la rekk yëngatu bi am rek gaynde mi toogoon ci wetam fële daal di i ya aa ni segg nag yow nag léegi nag ah agsi nga bu yàgg gis naa ne bu yàgg ba léegi yàgg may wut léegi nag agsi nga li ma waxoon ni bëgguma kuy nogg ci kanamu booy bi ngay sama kanam ni rek songo bi paaf paaf paaf paaf waaw weyeeg lépp jaxasoo suuf seeg yére yi lépp naaw paaf paaf coow lu bari li ah lan moo xew léegi coow li bari na de lée maam maam ñañ moom mi ngi doon def siestam rek jig mais qui c'est qui me dérange kan moo ma ni di ma yee ma doon noppalu mais coow lu bari lii rek jóg noonu ma jóge ak doole ji ak mer mi kër kër kër kër kër kër kër di dëgg jaan jaan di ni ko cafet matt ko matt bu saf maam ñay gën tëbaat daal dal ci cin li nekkoon ci taal bi fi doon toggee reer bi cin bi daanu diw ji ci nekkoon na graisse gi yépp yokk safara si safara si ni jëfit gu ñax yi rekk tàkk lekk ni jëfet faaf faaf ndeysaan rab yi xamuñ nu def amuñu pexe ñoom ñépp ñu daw daw daw ba sor yi safara si ña nga taxaw ñoom ñépp di ko xool safara sang naan fëf ba safara si kenn gisatu ko doom bi àgg sedd rab yi di ko xool gis ni fa ñu nekkoon doom rekk la dara nekkatu fi ku ci nekk xool sa moroom rekk geestu rekk daldi jawal sa yoon ñii dem ni ñii dem ni ñii dem nii foofu la mbelaan doxee boobu ba léegi rabu àll yi looloo tax ku ci nekk demal sa bopp li utale ak seen nekk ak ñu nekku nit ñi foofu la lépp doxe tàbbi géej bakkan bu ko jëkka fóon tàbbi àjjana jërëjëf encore des applaudissements s'il vous plaît yàlla na ñuy continuer comme ni ko Aziz waxee léegi di yar suñuy njaboot ci yar yi nga xam ne moom la mag ñi yoroon waaw euh, école bii nag les dévoués ce n'est pas seulement l'enseignement mais c'est surtout l'éducation allez des applaudissements pour l'école des dévoués ñu nag c'est sous ces applaudissements que nous allons recevoir la directrice de l'école Madame Sey pour son mot Mesdames et messieurs, chers parents, chers invités, chers enfants, quel bonheur de vous recevoir cet après-midi dans ce décor féerique à l'occasion du traditionnel arbre de Noël du groupe scolaire des dévoués. Chers parents, nous vous souhaitons à tous la cordiale bienvenue, ainsi qu'à toutes les personnalités et aux membres des associations ainsi invités ici présents. Nous sommes heureux de vous retrouver en si grand nombre pour célébrer avec nos enfants cet arbre de Noël organisé en honneur. Mes chers enfants, comme vous, j'affectionne particulièrement la période de Noël, car elle est un symbole de l'affection, de la joie et du partage. Il s'agit d'un moment exceptionnel durant lequel chacun peut s'amuser, rire, danser et recevoir des cadeaux. Mes chers enfants, Cette journée a été organisée pour vous et je souhaite que chacun de vous en profite pleinement. Toutes les attractions, les jeux et les cadeaux que vous avez vus sont pour vous faire plaisir. Alors amusez-vous et gardez de beaux souvenirs. Mesdames et messieurs, chers invités, je ne saurais clore mes propos sans remercier auparavant nos généraux donateurs et l'association Les Dévoués qui fait un travail formidable pour donner le sourire à nos enfants et leur permettre de passer un bon moment. Leur apport est inestimable et je les en remercie. Merci encore à tous pour le bonheur que vous contribuez à donner chaque année à nos enfants. Je terminerai en vous souhaitant à tous et à toutes un joyeux Noël et de merveilleuses fêtes de fin d'année. Je vous remercie. Bonjour les enfants. Vous ne m'avez pas encore vu, hein, celui-là, derrière vous. Salam alaikum. Salam alaikum les enfants. Bonsoir. Vous êtes très belles ce soir. Tatulen Sen Bob, Tatulen, Tatulen. Allez, merci. Salam alaikum. ñoo ngi nuyu Badiane ñu ngi nañ la si Demba Khoureja docteur Maimouna ziar nañ la Papa Ndione mon ami soxna Sophie ak sama xaritu bopp Ousseynou Mbuub eh, Makou Sey Makumba le grand joueur de l'AIC Farba champion national et régional tout dernièrement macha allah yal na yàlla barkeel mami may sa mbeng macha allah sama yaay ndeysaan Mariam sar sama yaay yaa ngi nii toog si dem ba nuyu nañ la kontaan nañ nañ dem nañ dem ak palaal xale yi ñu dem ma woy tonton Serigne <laughs> ziar naa la maam Khalifa yow laa waroon njëkk a de loxo yi xale yi yéen lañuy wax jàngi leen man jàngoon naa amoon naa tuuti xam-xam tonton Serigne Ndiaye lebal na leen ndax jàng na suñu bàjjen si demba xureja jàng na génnee na xale yi ñëw leen ñu jàngi ndax jàngay yorum réew ee soo jàngee soo màggee jariñaa jàngi leen wax leen jàngi leen jàngi leen dégg ma leen jàngi leen kaay leen fii ana para télé bi mami may sa mbeng jàng naa yi Mangati FM ku jàng jàng dala jariñoo e soo pulaar do jàng leen jàng leen jàng leen jàng leen jàng leen yéen yéenay ñan la femme de dévouée bu sopp Dévoué loxo ca kaw école de Dévoué loxo ca kaw yaay ndey yaay bàyyi doom mu jàngi ndam jàng baax na ay maman jàng baax na eh papa Njoon jàng baax na jëriñ nga waaye nu wóor na jàngi leen eh leen jàngi leen ah xale merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup baax na baax na baax na ñu dem voilà xale yi kontaan ngeen. aca léegi dem leen ngeen toog leen neexee ma wayaat na ne na ah, su ngeen ko sentir rek ngeen ñëwaat voilà léegi nag loolu dañ ko doon may xale yi rek ndeysaan c'était un morceau acoustique bu ñu doon saan travailler ndeysaan wallaay saan macha allah ñu doon ko woyal xale yi léegi nag ñu dem si morceau boo xam si nii nag dama koy may école de dévoué laa koy may école bi je peux dire directrice ou bien PDG bi sama yaay Fatima Badiane bëgg na way wi lool te bëgg na ki may way lool te woyee ma def ma mel nag Papa Ndione bëgg na ko sama waay ndeysaan maam xalifa Sarr bëgg na ko maam sa Serigne Ndiaye bëgg na ko Ousseynou Mboub bëgg na ko xam naa ko nañ dem dox ma ko Adama sama loxo yi tey ma way sama sa la la la la la la la la la la la la la la les femmes dévouées pour la cause de Dieu Fatima tey soxna Hajja la la la la la la les femmes dévouées pour la cause de Dieu

yaa jëfal si jëfam yi xam nga ki may waay noo ma lay jaayee xaatu leen ko muy wey ndax kii moo ma man ki moo nu jàngal moom la moo nu gindi ki moo nu tette moom la ki moo nu saagal ki moo def si man yar gi ki moo def si man maanaam moo def si ma santoon lu dul ñaan la yàlla fay la say Moussa Faye du ñaan na yàlla fay la sa yéene amoo Moussa Faye du ñaan na yàlla fay la sa yéene musal la si faskat xàncikat ndefukat ñaaw defi si barke mam Mbay barke mam Cheikh barke mam Maodo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Merci. fine. What is, your name? My name is Maimuna. And what is your name? My name is Wulimata. How old are you? I am seven years old. And you, how old are you? I am ten years old. Where you live? I live in Anne Marinas. And you, where you live? I live in Fasdalam. Thank you. Goodbye. Goodbye. Maram Sam What is her name? Her name is Hadi. Where are you going? We is called your school? Our school is called a school group of devotees. So, we are in the same school? Yes, we are in the same school. Let's go to school. day ma bàkk waa ji ñu doy wuy sa bu dee taxaraay day ma raay ba fekki ko alim yaa ngi ñëpp la ndëndi diine seeni galañ kenn desul ku ney rëkk naan yaay mbërub Tiwaawoon oh yàlla buur bi ak ndogalam lu mu nenoo du nekk ba faw lu mu newi mu wéy abadan ne na wéy si Mustafa mam su dem la ji jur na mbaax tey ñëpp ko gis jaarama Seex Seydi Moustapha Sy li noonu ñu bëggoon dalu la yéen koy confirmé tàcc leen seen bopp <laughs> loxoy laa bëgg rek mooñ yal na sooy yal na yàlla sam kaa rek ba an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. dañu bëggoon nga xoolal ni ñun ñaar ku dàq jàpp. ay ca am. Ah. dama naan bismillah. ma def sama loxo nii ñetti yoon. ma galax ne ko ñetti yoon ma sarax ne ko ma fiiru ñetti yoon ma raxas sama kanam ba mu set ñetti yoon ma raxas sama loxo ba fii ñetti yoon beneen loxo ba fii ñetti yoon ma saa sama bopp ma tàmbalee ci jebi ba ci ma ñëwaat benn yoon

ah sama doom jaru ko xam naa ni man ngeen bëggoon jàngal rek yal na leen yàlla fay. merci merci les enfants jërëjëf merci. Chers parents, chers membres de l'administration, honorables invités, très chers élèves, bonjour. C'est avec un grand plaisir que nous prenons la parole aujourd'hui devant vous. En ce jour de fête pour nos potaches, nous tenions à vous remercier pour, la, pour votre collaboration pour la bonne marche de l'école, les dévoués. L'association des parents d'élèves que je représente ici salue tous les efforts des enseignants de l'école pour l'encadrement, l'éducation et les bonnes valeurs qu'ils inculquent à nos enfants au quotidien. Nous remercions la bonne collaboration de la direction de l'école avec à sa tête Madame Sey et toute son équipe pédagogique et administrative. Nous ne saurions terminer sans pour autant remercier particulièrement Je dis particulièrement l'association des femmes dévouées pour la cause. Cette association qui a mis en place ce cadre qui a pour objectif majeur de former les élèves, de bien les éduquer. Enfin, on souhaite à toutes et à tous une bonne fête, plus particulièrement aux enfants. Et on souhaite à tout les personnel administratif et enseignant un joyeux Noël et un bon repos, car vous avez traversé trois mois durs et là, intellectuellement et physiquement, vous avez besoin de repos. On vous le souhaite et on souhaite aussi à tout le monde une bonne fête ñu jéggalu ñëpp xam naa bu ñu doon jéem a tënk dañ doon profité ci fête bi au nom de l'APE que je représente ici une APE bu nga xamante ni dama leen koy tooñe ni leen seen APE bi dafa amul benn parité parce que l'APE n'est composée que de femmes ñu jël ma teg ma ci kanam dama leen koy tooñe mais c'est des dames vraiment très braves wax dëgg yàlla on di que l'école des dévoués mais l'APE aussi est très dévouée donc yàlla na yàlla mottali soxna Fatima da nga ñuy baal ndax yow la ñu waroon jiital ci nuyoo bi ñu koy jéggalu bu baax di ci teg maam Khalifa ak tonton Serigne ñu yóbbaale ñëpp mais daal déo bi ñu doon lancé mooy ni ñun ñëpp ñun ñëpp lu ñu gën a mën a jàpp ci femme dévouée ñu jàppaat ci je dis pas femme dévouée mais plus particulièrement l'école les dévoués man personnellement dafa am lu ma xaw a gën a neex ci école bi yaa ma fille qui est elle a trois ans mais li ma gën a yéem mais bu yeewoo en plein sommeil assonage li mu lay njëkk a wax mooy damay tuur ndox donc c'est des valeurs que l'on inculque à ces enfants là donc yàlla yàlla mottali yéene yëpp incha allah ñun ñëpp ñu gën a jàpp gën a taxawaat incha allahu dina baax te wolof moo ni ku yokkul yaa wàññ si je ma me trompe année dernière c'était notre première édition on dans la salle. de l'école cette année-ci ñoo ngi fi incha allahu on va encore faire d'autres pas en avant incha allah donc ñun ñëpp ñu gën a jàpp rek ci ak ci barke mu Moustapha Sy lépp dina baax bu soobee yàlla ñu jéggaluwaat ñëpp wasalaamualeykum. merci monsieur Seck noo bàyyi ko ci kaw kii bàyyee ñu ko. naalu root sama xol rotam ganoot sama xel may laajte naan nu mu mel saa xel mi ay lu ko këf tontom jaral ma di wër ay gox di gëstu lu wér saa ruux dadab ma te war lee waral du tërëf war naa ca kaw di ay bés di jéema deñal gëlëm gëlëm ba ak xel lu diis la mu saa xel mi daa bëgg saa xol bi daa bëgg sa ruux bi moom bëgg ñam dofeel ba xam la mu saf kawteef ma laajte ni xol yow tollogoo fi ni fel bay dëkk niiru cofeel bàkkul ñu seede sa jëf ñam sax ca ñoom ñu di laa gis te ñoom te du bët góor yàlla pur ma du kët ndir baa ku kook la mu laf moo ñàkk maas te di sens ci ndaw ñi xëy bëgg raas meññee maw doote aas meññul garab bu woyof si dalaami man may jéem te sax du ma mën di wax ci yow benn fan xajul ci làkku wolof yaa xamle bépp xaraf yaa tax ba tey bépp gox di xeñtu njub di ca dox yow may yu rëy nga ñu jox réew mi kon jërëjëf te bàkku woo a wax yow woote nga fëx te kenn sañul di la bif yaa làq ñett yu tax njaboot ku dugg ci pax du jaaxle mbaa na sax bay fàtte la mu war a xam bu téere amul teggin bu pénc xamul aslak ki rëy bëggamul ñett yaa ko fi yaa maandu yaa dëggu yaa sell yaa sore beew say jikko ñëpp ko naw say kàddu yàlla la saf maam sa ndax jom nga am ba mustar si diina sa yëf bu xam sa mbir du ka ndax gaynde dee ko dab te nga du gaynde gu ajul ci muusa ki def na la Adja Binta Ndoye Diagne macha allah euh, les prestations étaient euh, vraiment magnifiques euh, di sant encore parents d'élèves vraiment ci taxawaay bi ak ci encouragement bi ak engagement bi ñu am ci ñun. di nuyu suñu papa Khalifa Sarr ak tonton Serigne di leen sant également ci ak accompagnement bi ñuy accompagner depuis le début di sant également suñu euh, personnel euh, bu établissement bi vraiment amuñu morom wax dëgg yàlla depuis le début ñu ngi ko ànd ak ñun euh, ñuy jógandoo di daanoondoo vraiment yal na leen yàlla fay yiw santaat bu baax a baax suñu invité yi ak suñu parrains yi marraines yi vraiment macha allah tonton Cheikh Sarr bu Irchad moom moo nekkoon sax suñu parrain d'honneur mais mission bi dafa am ko woo tey moo tax sax mu gàntal jotul la ñëw mu yónnee mu ñëw teewal ko ah di leen sant yéen ñëpp vraiment si taxawaay bi wax dëgg yàlla amuñu seen fay di ñaan yàlla école bi dem ba nekk ay école yi école incha allah si barke góor gi incha allah tonton Zawa yow itam di la sant bu baax vraiment si taxawaay bi. ah j'en profite même pour annoncer que c'est lui notre directeur pédagogique donc euh, di ko féliciter itam si poste bi di ñaan yàlla fay ko yiw moom itam ndax sonn na ci torop vraiment di santaat élèves yi ñoom itam vraiment macha allah amuñu morom aussi ak seen évaluation yi vraiment on a vu que ils ont un niveau macha allah très bien donc sant ci également seen maîtres yi ak oustaz yeeg yëpp vraiment a tonton Zawo nag daf maa ndax ndax dama ne ma wax waaye xam naa kàddu yooyu rek lañ bëggoon yëkkati di leen santat et on vous souhaite de joyeuses fêtes une bonne et heureuse année 2024 incha allah merci jërëjëf. soxna Fatima bu Khalifa. musër gee ko jaaxal de waaw ah, non non Voilà. Voilà. Mam Cheikh Ahmed Tidiane Si Diagne de la crèche. Maimouna Seck Khadijatu Diop de la gaynde njaay njoobeen bi yuuxu na de Lela Diop Adama Gueye moom ragalul perte <laughs> kii ragalul perte Marème Fall CP Moustapha Sy jiite Serigne Moustapha Sy jiite Serigne Aïcha section Xadijatu sëy sëye un Soxna Fatima Diop de la moyenne section Awa Khalifa Diop de la petite section Oulimata Ndione CM2 Marem Soro Diop de la moyenne section deux l'occasion de la sortie au monument de la Renaissance ñu ànd ak bàjjen dafa mel ni pareegul les photographes les responsables des femmes la tête Sokhna Fatima Sy Madame la de l'école des dévouées chers membres de l'équipe pédagogique, chers parents, chers enfants, chers invités, à chacune et à chacune, en son rang, grade et titre, j'adresse mes salutations distinguées au nom du directeur du groupe scolaire Al-Irshad, M. Cheikh Ahmed Tidjansar, empêché, nous a demandé de le représenter, ainsi que Euh, monsieur Guilaye Ndir conseiller pédagogique de l'élémentaire et monsieur Khalifa Lo principal du collège donc de le représenter à cette cérémonie qui lui est très chère permettez-moi à l'entame de mes propos de rendre un vibrant hommage à Serigne Moustapha Sy porteur de ce projet en effet nous du groupe scolaire Al Nous nous réjouissons de ce parrainage qui revêt un double sens. Il reflète d'une part notre commun vouloir de mise en œuvre de la vision de Serigne Moustapha Sy dans le domaine de l'éducation des enfants. Et d'autre part, il témoigne que nous avons ensemble la même mission qui est de préparer et de former les générations futures qui devront, dans un avenir proche, présider aux destinées de notre cher Sénégal. Mesdames, Messieurs, le monde d'aujourd'hui est un espace de concurrence où seules les performances et l'excellence déterminent les statuts des uns et des autres. La performance et l'excellence dans le domaine de l'éducation forment un système dont les éléments constitutifs exige à la fois un engagement, un enseignement de qualité, un cadre et un environnement, des apprentissages adéquats, un encadrement de qualité, un pilotage arrimé sur la gestion, axé sur les résultats et surtout une offre éducative qui répond aux exigences de l'heure. Il ne s'agit plus d'être performant à l'école, mais plutôt d'être excellent. afin d'intégrer le cercle très restreint des grandes écoles de référence. Je ne doute point que l'école des dévoués s'inscrit dans cette dynamique. Donc, au nom du directeur d'Al-Irshad, nous vous témoignons toute notre gratitude et magnifions les efforts constants dans le domaine de l'éducation. Je ne saurais terminer sans remercier celui qui porte ce projet je veux nommer mon très cher guide, cher Seydé Mohamedou Moustapha qui toute sa vie a toujours œuvré à l'éducation des hommes pour la stabilité de société Que Dieu veille sur lui. Je remercie enfin au nom du directeur Sorna Fatima Si et magnifie sa démarche inclusive dans la mission qui est la nôtre. Bonne fête de fin d'année à tous et à toutes. et mes meilleurs voeux pour l'année nouvelle merci de votre aimable attention. jaajëf ñi ngi gërëm di sant ñëpp fête bi nag feetu xale moom moo tax mu demee nii waaw on a voulu vraiment donner la part belle aux enfants waaye itam may gërëm femme débrouillée euh, ci nomination bi man maay directeur pédagogique bi incha allah dinaa ko def lépp pour matale ko incha allah

sa rakk may la mburu jali bi gaf ko sa nijaay may la mburu jali bi gaf ko sa bàjjan may bi gaf ko tànk baa ngi